ku war ci ñooy xeeb na gërëm ku aw fasaaxa ku dër adduna jeex na ba di taraas akum lëndëm ku dee tiraas ku mel ni Mansour ci palaas dootoo ko gis njëkkël sa kër xam ngeen nag Alaaji Mansour Cheikhul di xalifa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu mu ngi tudd Cheikh Tayib ba ko Sidi Aboubacar teeroo teeroom bu mag ba ànd ak alaaji Ceerno Seydou Nourou Taal ministre Cheikh Omar Foutiyou du ko di dégg du la kenn ku du alaaji Mansour Cheikhul xaw bi jërëjëf suñ doon laaj keneen Cheikhul xaw mi doo ko laaj nit ñi wala doo ko laaj sa jëmm yi dangay dem ci ay palaas dafa am benn boroom xam-xam bu ni lahu min allaahi fadlun laa yuqaasu bihi sal anhu ahlal huda wasma bi raddihim in chita sal yaa axi zihil qiraa ajalan tiwaawanan wa dakaaran gent paatehi bi aw kawlaxan wa kaza ceesan wa saalumuna kaza jolof asluhu fi ahli laa tahi bi dafa am benn borom xam-xam dañ ko laajoon kanay cheikhul xaw mi muy Cheikh Xaaji Mansour mu ne bu ñu lay laaj kanay Cheikh Xaaji Mansour in shi'ta sal yaa axi zahil zahil na boo ko bëggee xam ci lu gaaw da ngay laaj ko ay dëkk lu gaaw nee na boo ko laajee bul dem na nga toog ci ñoom wasma bi raddihim yi nga déglu lañ lay delloo ci ay tontu ñu ni ko yéen dëkk lañ koy laaj mu ni Tiwaawan da ngay dem nga laaj ko Tiwaawan gi mu juddoo am Cheikh Xaaji mi ngay laaj. doomu maam Cheikh seydoul Hadji Malick way juróom bu jigéen mu ngi tudd maam Safiyatu Ñang papa maam Cheikh Hadji malik ak maam Safiyatu way juru maam Safiyatu bu jigéen ak way juru maam Cheikh Hadji malik bu góor ñoom ñaar ñoo bokk nday ak baay nonu nga dégg kat naan ko alaaji malik moo la jur mooy sen di jaay te moo la yar way juru maam Safiyatu Ñang bu jigéen muy soxna aram bonko si moo jur soxna Safiyatu Ñaŋ ak maam Ousmane si bi nga xam ne moo jur maam Cheikh Seydil Hadji Malick seen ñaari baay ñoom ñaari ñoo bokk ndey ak baay. alxaaj Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu xaaj njaga moo waxoon baayam dama mën a jàng mu ne ko Mansour yow ki la jàngal moom a jàngalul alxaaj Mansour radiyallahu anhu mi ngi gane àddina 1900 moom xaaj Mouhamadul Mansour baayam Seydil Hadji Malick soxna Sofiyatu ñan jur ko waaye Serigne Cheikh Tidiane si almaktuum dafa wax ni waliyu war na yëg ak wilaayaam la njëkk muy ñëw waaye alxaaji Mouhamadul Mansour yëg na ak wilaayaam la njëkk muy ñëw mbooleem nitu yàlla yi xamoon nañ digganteem ak boroomam alxaaji Mansour waaye xamoon nañu digganteem ak Seydil Xaaji Malick keroog bi mu fi bàyyi ko 1944 bi ko Serigne Babacar Sy ne demal Màkka ñaan ger ba jeex ndax xam na diggan relation bi mu am ak borom bi subhanahu wa taala alxaaji Mansour ci ndigalal sëriñ Babacar 44 mu dem màkkatal mukaram ajam gu barkeel googule mais bi mu wàññeekoo dafa jaar Maroc umu alxaaji Mansour bi mu jaaree Maroc dafa jaar dëkk bu ñuy wax Marrakech Marrakech mooy góor gu ñuy wax Mouhamed Nazifi xaj njaga Mouhamed Nazifi moo daan bindanteeg leetar Seydil Xaaji Malick moom moom Mouhamed Nazifi Mouhamed Nazifi bu daan bind lettre alaaji Malick alaaji Mansour mooy tontu lettre ba te booba mu nga ca téere yu ndaw ya nga mën a dégg te la waxoon bàyyi yëg naa ni dama am xam-xam xaw ma lu ko waral Seydil Hadji Malick ne ko Mansour ki la jàngal moo ma jàngalul. waaw xam nga moom dafa waxoon dafa waxoon baayam dafa am loo xam nag foog ñu delluwaat ci ginnaaw tuuti Cheikhul xaw mi boo ko bëggee xam bu ñu la laajoon kanay Seydil Hadji Malick nga ni mooy Cheikhul xaw mi tontu bi baax buñ la laajoon kanay cheikhul xaw nga ni moy sidi hajj mak tontu baxna dafa am ben mak buñ wax mam Ahmed dembu Soko mo bind téré tafsir bobu ñu wax diya Diyaa An-Nayirayni mom xam-xam pire la mam Ahmed Dem dafa ñëw tiawan set ci mam Cheikh sidi hajj mak bo mam Cheikh hajj Mansour ci ay ati zahiram wu lol su doon jamono benen nit da nga nan xale la muy waxtaan ak mam Ahmed Dem ba ci ni ko Ahmed Dem mu ni ko labbayka mu ni ko xanaa xamoo suuf ci yàlla bind Seydul hajj Malick xam ku ci ne ci ñun ci suuf lañ la bind min haa xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ni ko waaye ahmed dem xanaa xamoo ni suuf si yàlla binde maam cheikh seydul xaaji maan ba mu desee man alaaji mansuur la ca bind bindaatu ci kenn waaye alxaaji mansuur keroog bi mu duggee marok mouhamad nazif dañu njabootam xetu alaaji malik moomay xeeñ te waxoon na alxaaji amour dem ca sookoon ne ko suuf si ñu bindee alaaji malik la ca des la ñu ma bindee man suur moo tax ma tuuti. noonu ñu ñàkk xame nag kanay Seydul Xaaji Malick noonu la ñu ñàkk xame kanay Cheikhul Xawmi Cheikh Xaaji Mansour kenn du ko xam ndax moom mooy bàyyam ni ko nit ñi ñàkk xame nag moo tax ñu dem ba jamono mu waxoon ni jamono ngi ñëw man alaaj Mansour sama tur dina génn buy génn nag du koy sàkku waaye mu ni jamono dana ko génne bu ko jamono di génne nag mu ni bu boobaa dana nekk loo xam ni képp ku yàlla baaxal nga baax ndax dañuy wax ni mooy sëriñu mag ñi ak ndaw ñi xam yàlla mbaa ñu nar a xam yàlla mu alaaj Mansuur mooy sëriñu mag ñi mag ñi nga xam ni dañoo nekkoon ak maam Cheikh Xaaji Maalik Maodo di leen yar di leen defar mag ñu nga xam ni ñépp ko magoon sëriñ Babacar si magam rek maga na ko 15 ans fukki at ak juróom la ko magee ndax sëriñ Babacar 1885 la gën a jamono Cheikh Xaaji Mansuur 1900 la gën a jamono keroog bi ñu koy denc 29 mars 1957 Tiwaawoon ñëpp jaaxle Serigne Babacar 25 Alaaji Mansour 29 keroog bi ñu dencee Alaaji Alxaaji Mansour bi ñu gasee ba gis perkaalu Sidi Alxaaji Malick Ba Alaaji Ahmed dem ca Sokone daay ca Sokone daay yuuxu ñu ni ko lu xew mu ni Mansour mat na ñeent fukki at mu ni ma per suuf suñu bindee Alaaji Malick la ñu ma bindee ndax nit ku ne suuf suñu la bindee boo génnee àddina fa ngay dellu Alaaji Mansour moomu nag. ma waxon ni sama bay mawdo moy géej mi ay dex rek ko wër huwa al-bahr wal anhar fi janabaatihi kon ay yakhsha zama man kana fi janbihi al-bahr ñu ngi ñaan sunu mbeugël ci mom yalla ko yàlla gëna a dolli. maam Cheikh Hadji Mansour dafa nekk ci suuf bayam nëbbatu waye bu génne won xam xam non la yéme adna bi ci xam-xam ndax kiko jàngal moy bayam ñu nga lool moom jàngiwul fenn. فلقد تربى في حجر والده موم فيمو يارو موي اتو بايام يالا نينا بو نين ما راغالي ما جانغال لين تا شيخ الحاج منصور دافا جودو والي راغال يالا راغال يالا دافكو جودو والي موي بن موني كو كون دا نام خم خم موني كو نياارل بي موي رسول الله دافا واخني ما اتخذ الله وليا الا وعلمه يونتي دافا واخني يالا دو جيل كين دافلا ولي دول دافلا جانغال باغا خم تي موم دافا جودو والي ولايه كون نيكو دينام خم خم mu ni ko waaye nee ko na toog ak man rek su toogee ak man li yaarifan naa sa xaqiqatal maarufa xataa laa yaxtarra bii xamul ma koy xamal nit ñi laa koy xamal nit ñi ba xam nag ba du waroo ci ñoom xam nga am na sëriñ bu jàng ba bari xam-xam nit ñi wor la nax la ba nga pett wilaaya nga xam-xam am na sëriñ bu amoon cër ci wàllu yàlla nit ñi nax la bàyyam ni ko nit ñi laa koy jàngal ba mu xam nit ñi dëgg-dëgg xam ba du waroo ci ñoom kooku nag mooy bàyyi xalifa bi sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour kooku mooy bàyyi soxna Faat si mi mu dénkoon Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji mbëggeel gi mu amoon ci sëriñ Babacar si kenn xamul lu mu doon waaye mbëggeel gi mu amoon ci rakkam ja Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh Mouhamadul Habib kenn xamul lu mu doon moo ko waxoon ni ko arafil qalbi xubbun maqayaali li cheyqin mursidin mudnil kamaali alaaji Mansour xamoon na ni bu sëriñ Babacar demee day dem ki fee wuutu tey kër gi tariqa bi diina ji mooy rakkam ja Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh kon El Hadji Mouhamadou Mansour yal na yàlla yokk leeram. yàllaa ko defaral boppam waaye maam Cheikh El Hadji maa moo jël maam Cheikh El Hadji Mansour téye ko ci boppam pour defaral ko bopp muy adaban moo ko moo ko defal li ñuy tuddee it waqaa wa waqaaran mooy wegeel pour nga am nit nit weg nit maam Cheikh El Hadji Mansour ko yàlla defaloon ci respe respect bu mu ëmbaloon doomu aadama wax nañ ni bu musaana toog ci biir néegam di bind su ay nit doon bëri ci néeg bi lu coow li bari bari du leen tere benn bis mag ñi di di yëngatu ci biir néeg bi am kenn ku ni ko si ndax doo def nangam mu ni ko hee eh, gor kenn du ko digal kenn du ko tere gor guy def dara kenn du ko tere bàyyi leen ñu def kon ku respecté woon boppam la waaye ku respecté woon ku ko yàlla boole loon li ñuy tuddee di wa sakinatan dal yàlla mayoon ak dal la moom Cheikh Alxaaji Mansour waaye wa mu tam jëflante ak doomi aadama yi jëflante bu rafet jëflante ak ay mbokkam jëflante bu rafet danañ ci ñëw jëflante ak boroomam jëflante bu rafet yàlla def ko koo mayoon te moo ko jàngal moo ko yar li ñu tudde siyaasa siyaasa mooy firi xusnul muamala mooy firi jëflante bu rafet gars yi dañuy firi siyaasa politique firiwul politique siyaasa mooy firi jëflante bu rafet jëflante bu rafet loolu bàyyam ak ko yar ba mu mën ko bi ko baayam yaree ci ni mu mel nag ndax day baayam ci la sàkkoo moom nëbboom nga ci lañ dem ba jamono nag waywu wu siiw woowu ngay dégg mooy bi nga junj te ñëpp di ko way moom Cheikh El Hadji Mansour bindu ko dañ ko koo way

benn naar bu ñuy wax Chérif Hassan moo ko way mu ngi ko ko wayee Thiès ci ëtt bu ñuy kër penc mu ñuy wax pencum alxaaji Ahmad Baro Njëgéen penc moomu Cheikh Alxaaji Mansour julli na fa ay at jiite na leen fa it ay at mooy iidul fitri korité xool ko ba mu yàgg jël big ak këyit daal di bind araftul waraa sharqan wa garban wala ara ka misli fatal mansuuri fi saairil wara إذا استبق الأقوام يوما إلى الأولى يكون إماما للورى والورى وراء نار بي موخ موني عرفت الورى خمنا من دي من شريف حسن شرقا وغربا ني ديك بينكو خمنا لين ني ديك سو خمنا لين يلا كوماي واي ولا ارا مسوما غيس تي نيوم من دي يوي كمثل فتل منصوري تيام سو خمني داغا ملني شيل حاج منصور مسوما كو غيس te دمنا naa penku dem naa waaye gisuma ci mbindeefi yàlla yi cam su mel ni Cheikh Hadj Mansour musuma ko gis mu ne isa sabaqal nag yow man ilal ula bu góoru yàlla yi mag yi njëkkalante mooy rawantee guddi yow man bis ilal ula jëm seen borom am na waxtu woo xam ne góoru yàlla dañuy rawante pour dem ci yàlla fa ñuy daje ñoom ñoo ko xam mu ni bu ñu rawantee pour jëm seen borom yekkuunu da ngay gis alxaaji Mansour mu Seex Seydul Xaaji Maalik mi yekkuunu mu nekk imaaman di njiit la ñan lay jiite mu ni lil waraa ñeel mbindéef yi wal waraa mbindéef yépp da nga leen di gis bu boobaa waraa ah ñu nekk ci ginnaaw Cheikh Hadj Mansour moo tax boykat ba waxoon ko ni ko fa yàlla dogalay farataam yoreen tëral fa ay sunnaam Mansour a doy foofa imaam roy leen jikkoom moo ko jar dégg nga fa yàlla dogalay farataam yoneen tëral fa ay sunnaam Mansour moo leen doy foofa imaam roy leen jikkoom ya moo ko jar keur gu am Mansour keur ga day am barké aladi Mansour nimbalal borom bi subhanahu wa taala waye di nimbalal keur Seydil Hadji malik mo wax ni nek nak sama baay 1900 bima gëna adina ba 1922 ñaari yoon la ko gis mu naan ndox mu ñuul mu aladi malik ca Tiwaawan nak dakar muy taw mu ni Mansour dekkal ma ma dekk ñew jox Seydil Hadji malik aladi Mansour mi xam aladi malik biñ ko laaje kuy mawdo dal li ma tok mom musuma gis mu talal ay tankam moom alaaji ma moom Seydil Hadji Malick moo Hadji Mansour ndax bu wéetee mu ni bu wéetee sax daawul tàllal ay tànkam lu tax loolu mu ni ngir ragal borom bi subhanahu wa taala alhaaji Mouhamadou Mansour moomu nitu yàlla yi wax nañu ni demam nga sax moom la neex ndax waliyu dafay démissionné waliyu bu ko neexee dem yàlla boole woon na ko ca ña nga xam ni lu ñu wax yàlla def heure demam sax mën naa bañ jot góor ga démissionné dem gunge Serigne Babacar Sy mu fekki bàyyam Seydil Hadji Malick kooku la ñu uufal bayam Seydil Hadji malik bo nuyo mawdo Alaaji Mansuur a nekk ci wetam yàlla ñal tass ci barkem yàlla yok leeram kokoy bayu bàyyi Serigne Babacar Mouhamadul Mansour Alhaji mohammed Mansour. domam ju ñu wax Serigne Cheikh Tidiane al maktoum bu Serigne babakar si wax na lool Serigne Cheikh ci dalé bam ko way nee ko Cheikh Alhaji Mansour wa fayta daairatal ixaatati mugraman bi suman yahuddu daraibal maabudi Serigne Cheikh nee na ko yow Pape Cheikh Alhaji Mansour fayta nga yow. fan la ñëw mu ni daayiratul ixaatati fu góor yàlla yi dajale ci palaasu yàlla yi daayiratul ixaata secret boobu moo ne ci jëwatul kamaal moo tax kenn du ko jàng ci luy daw day këpp kenn du dox di ko jàng da toog jàng ko secret boobu ci nekk nga xam mooy doole ji bërëb la nag ci bërëbu yàlla yi sëriñ Cheikh Tidiane si bu sëriñ Baakar nee na si pap bi ngay ñëw yow bëggoo woon a ñëw mooy sàkku woo ñëw gi waaye moo ko raman dañoo sàkku sëg ñëw fa yow mu ngi man bi su man ci yëkkati ko waaye xam nga lu ma bëgg a wax Serigne Cheikh nee na ko bi nga fa ñëwee yow Ousseynou da ngaa baaje yow Ousseynou da ngaa yëngal yow Pape Serigne yow Pape Cheikh Hadj Mansour mel ni dañ ñu ko si lu mu yëngal mu ni sam Pape Cheikh Hadj Mansour bi mu dikkee yow dafa yëngal dafa baaje doraa ibal maabuur yi domaine yàlla yëpp Pape Cheikh Hadj Mansour yëngal na ko xoolal domaine bu yàlla am Serigne Cheikh nee na guddeem googu yëngal na ko moom Pape Cheikh Hadj Mansour waaye ku dul moom mosoo ko yëngal. ay fàttaliku leen ca tegu colonialiste yi ba mu méttee 39 45 ci du dem ca Sidi boubakar ki mu ne won tan na ko ci njabot gi mu yalla ji man so cheikhul xaw bi waaye ba mu dewe ci la guerre ba tas waaye fàttaliku leen ki xamni en 1922 bi fi sunu mam Cheikh sidal El mari jugge mom la Sidi boubakar ko won seetaatal muqaddam yi ñoon ñëpp ñewat fossat kolere ak kan ak sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick kooku mooy kan mooy Alaaji Mansuur Cheikh xaw mi mooy sama turandoo mooy bàyyu xalifa bu tedd bi waaye fàttali ku leen loolu waaye kooku rek mooy Cheikhul xaw mi yal na nu yàlla taas ci barkeem ci dara yi sang bu tedd ba ak magam ya xaritam ba soppeem ba ka xam ne léppam gannaaw yàlla ak yonent bi ak rasulullahi du kenn ku du Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu di Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu والإحسان والجود فرد على الابن شكر الوالدين ومن مولد الوالد البر يا أستاذ مم حجم يا نجل عثمان يا سعد المريد ويا من عنده النجح والإحسان والجود فرد على الابن شكر الوالدين وموضوع والد البر يا أستاذ مام حاج منصور وأنت أيضا رب الناس مصلحها وكان لي منك إرشاد وحاج منصور فرد على الابن شكر الوالدين وموضوع والد البر yaa ustaas maam Xaaji Mansuur ne albastani bili baasi sitri fi zamani xudran